ngërëmal bëlki démb li nga xam ne tukkee na ci sëñ Tuubaa tàbbi ci yéen rek dafa doy di sëkk te sëñ Muntaxaa ni mu ko waxeet mat na sëkk te ngërëm loolu it dox na ba tàbbi ci yéen it te it lu ngeen di gis la lu ngeen di xewloo lay doon yàlla ci sama borom def ñu muurloo ko te yàgg ak moom pas-pas bi rek am solo te loolu mooy ak taalibe àddina moom bu amee ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy saa su saa su ne di rëkki pas-pasi nit ñi ci sëñ tubaa waaye dañoo xamul ne am na ñoo xam ne ñoo satal ak sëriñ bi kaal ak sëriñ bi kurug sëriñ bi ñoo yem ci sëriñ bi ci bagaasu sëñ tubaa lañ maanaam dañoo wutul sax ay pas-pas ak ay ngëm waaye dañoo bokk ci sëñ tubaa dama dama leen yàgg di leen wax ne leen murit bu nekk nag xanaa tey la waaye murit bu nekk da nga daan ñaan yàlla xëy suba nekkub milliardaire nekk jiili mbay wala njugam kebem sëriñ tubaa murit bu ne kooku moom yow la concerné nga koy ñaan yàlla kon nag yéen ci bëgg dugal jamono bëgg ko dugal ñun dañoo nekkul ci ñun dañuy dem waaw ñun dañuy dem te it xam nañ li indi ci àddina bàyyi ñu fi waa li nu fi indi bàyyi nu fi ndax sànq sama biir waxtaan nee naa leen Serigne Touba moom la mu digg ñun man bi ma gëstoo ba bàyyi àjjanaa ci gën a tuuti te it bu ma nee man bu ma gëstoo ba bàyyi ndax man sama gëstu sew na te xóot na ñàkkumaa xamit li may gëstu lan la sew na te xóot na waaye nee naa ba ma gëstoo ba bàyyi lam nu dikk àjjanaa ci gën a tuuti ndeke kon nag eh, loolee nag moom ñun fa la ñu nekk guddi fa la ñu nekk bëccëg sëriñ tubaa la ñu gëm sëriñ tubaa la ñu am sëriñ tubaa la ñu bëgg sëriñ tubaa la ñuy liggéeyal sëriñ tubaa la yaakaar loolu nit mënu ci dara dara te xam ne bu doon ne suñ digg ak sëriñ bi suñu pas-pas ña fi nekkoon ci leneen lu ko jarut di teg seeni bakkan jihaat jar ko ñun suñ bakkan yi ñoo ko moom te jébbale nañ ko bu doon jihaat dañuy dee waaye duñ toog di nettali xare bi nan la demee kon nag gëm nañu lu wóor yaakaar nañ lu wóor suñu bakkan lañ ci gàll te kenn mënta te saa bu ñu xëyee ngëm gi di dolliku yaakaar gi di dolliku kon foofa fa nu ne ñun fa ñu nekk doy nañu sëkk la ñu nekk noo ko bëgg noo ko yaakaar amu ci kenn ci yéen koo xam ne bëgg bëggloo nañ la sëriñ bi toppaloo nañ la ko yaa ko bëggal sa jëmmi bopp bëgg goog gi nga ko bëgg nag yow sa wàllu bopp nga ci sàmm te it loola eh, yàlla sax nag nit mom bu ñoré te mus adina da ngay mujj mom saxaadatu daara ni dang koy am da ngay texe fi texe feulé te it sa mbir mom bo féké mbirum Serigne Touba muy saxaadatu daara ni Serigne Touba saxaadatu daara ni la Serigne Touba tay sirul khasir la Serigne Touba mafatil bisri la wa mafatil bisri bisri caabi mbekté yi moy Serigne bi ndax damay wax ne amna lo xamné ci adina du njabotakul la du wërseug la du lol lépp. ndax dina len neex ne al mal wal banuna wazinatu halatu dunya adina mom lañu jàpp ne tarub adina la muy alali adina ki ay njabot ak ay soxna du tar loolu fitna la ngir adina mom da nga gis ndey ak bay tekunte sax dom xeyna sax gëdd wayjur lu way di defal nak jigeena ci gëna gore di ndax lo ca def def def bis bu manké len mu melni musa ca def dara kon li ngeen am def len ko ci seigne touba waaw man waaw ndax loo jaayanteeg lu dul sëriñ bi rek xaaci woo lu dul sëriñ bi rek loolu moom dara da caa nekkut dara da caa nekkut te mboolem lu may digal doomu aadama it du lu ma foog du lu ma yaakaar loo xam ne la àddina daa def damaa fel xoog loole ba gis loola nam mel li ma ne li ma ne léegi lu may dox di ko saytoo ko xam rek lu ma xam bu wóor la ndax set bamay set seet sew na gëstu ba sew na te it amna ci attention te it sama tank man na sori loli lepp nak boy dajé ci mbirit kon lo cey def rek ci adina li leen indi ci adina dal na ngeen ko xam li leen fi baye na ngeen ko xam kon lolu sa su nek du ma dañ ci di wax euh euh di di ko diglé it te it lenn lu may diglal doomu adamay di ko wax it man sama dund rek lay jël di photocopie di ko joxe man adina amul xam ngeen ne dara tënku fi mom lu dul sëriñ bi rek dara tënku boo fi nag lu dul sëriñ bi de te loolu nag demoon ngeen ba gis Alaaji Fàllu Mbàkke di wax ne bëggug sëriñ tubaab moom dafa mujj sax jurul ko ay jooy waaye jooy ya sax farata la waaw ndaxu bëgg nga dem ba gis nag ku lay wax ne la bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuubaa sax xam na ne ndekete mooy turu yàlla wan reconnaître ars aras ak kursi yu waaw aras ak kursi yu turu yàlla wan fa mahabbatul habdul hadimi wér di la daazul xars xayrul wér di mooy la gën ci bëgg kon fi ngeen teg seen tànk joggi fa seen tànk lu wér la ndax fii yàlla dimbali na leen ay jaaxil nekku fi muy góor muy jigéen yéen ñëpp am ngeenum jàng ci wàllu àddina it bëtt ngeen ko ci wàllu seeni téere it bëtt ngeen ko loolu nag euh, kon mooy li nga xam ne mooy àddina nag bu la fi yàlla feeñloo ba nga xam ci dara la ëpp solo ci àddina nag mooy boo làngeek àddina nga xam àddina ndax dinaay jël léeg-léeg ñenn ñi nga xam ne mbirum tasawuf Eh, mënee su koy jël di ko sottar ni ba loolu waaye léeg nag ma waxtaan ceeg ñenn ñi def ko ay tënk badu mii mi dama koy yàgg di ko wax ne ko ne ko àddina day day mbërum làmb moo xam ne dangay ngay moom ci léewtoo ci léewtoo muy léew nii ngay léew nii ay loxo rek ma ne ko waaye nag bul ko song de ndax boo ko seen boo ko songoo soo ko yenoo ana foo jëm ak moom boo ko yenoo yow yenu àddina foo ko jëme waaye àddina it am na doole joo xam ne xajut ci yow bu mu la yenoo rek yow it dana la gaañ kon saxal ci Leewtoo bi rek ba jàll dem loolu man naa ne fukki téereeg ñaar la rek ma yemale ko ci baat boobu ngir ñenn ñoo xam ne xëy na léeg-léeg nga tënkal leen loo xam ne xam-xam bu sotti la waaye buñ ko doxee daañu ko mën a jëfandikoo léeg-léeg ñoom ñi maam ci ñoo xam ne loole la kon nag maa ngi santaat ñëpp di sant bàyyi sëriñ moomu ci kàddoom yooyu di sant seen jaayante bi te di ko rafetlu te it ngeen xam ne lu ngeen ca jaayante jaayante it eh, su waxtu yin wax jotee eh, ku ñëw dana dem ku ñëw dana dem waaw loolu moom nu xamee ko noonu xam naa sax njuga dana leeralal sax yeneen yoo xam ne ci biir maa ngi moom ñoo ko mujj seq te agsiwul ci yéen ci biir liggéey bii yoo xam ne fan yii ma defaat Tuubaa ñu jëm màggal gi damaa mujj futti mbub moomee moom mi ma jël ko dugg na Jakarta def nay lu ne ngir ñu taxawee loolee lépp ci niñ ko bëggee ak ni mu war a sottee ak na ma ko bëggee Lola am mu mel nole, man buma noppé mak buma togué ma sol may lus bi sante seigne Touba dagan na <laughs> dagan na <laughs> waaw té kon nak loola nak moy liggéey bi eh, di len seereel it moom mii gom ci sonu ak liggéey bi ndax man sama liggéey wul ko wax amuma guddi amuma bëccëg noflay rawati na nak lu jëm ci walu seigne bi lu wàllu jëm ci walu seigne bi rek man li ma ci bëgg a dégg rek benn kàddu lay doon mooy sotti na awuma ca sax balance buy def nii mooy ni ma ko yaakaaree bëggee ko noonu bala maa am jàmm joojee rek mooy ni ma ko bëggee loolu day sottee doonee kon lii ma gisit dal na samam xel lii ma gisit euh, sant naa leen ci gërëm na leen ci euh, euh, buñ ci jàllee ñoo nga jëm ca gàmmu ga gàmmu ga nag la ma ca daa la ma ca daa wax rek lañ cay wax ña ngay jëm ca loolee waaye loola it am na nu rafet njot ne fa ngeen nekkoon démb fa ngeen nekkaat tey loola na ba noppi waaw fa ngeen nekkoon dem fa ngeen nekkaat tey kon loolu moom jàll nañ ko ba noppi sax jàll nañ jëm ca loolee ndax guddi gi ñu nekk ak bis bi ñu nekk di ay taalibe lu nu xuusat ci lislaam rek bis bii ñu ko may waaw bis bii ñu ko may nu xuusaat ci lislaam bis bii moo ñu ko may ndax nun ay murid lañu ay taalibe sëriñ bi lañu yaakaar lañu sëriñ tubaa suñ digg ak rasulullah yi sëriñ Touba lañ fa doxale suñu digg moom sëriñ bi lañ fa doxale loolu nag bu jullit bu de war ngaa am échelle boo xam ne sa digg ak loolee loolu la ñi nga xam ne nag échelle boobee nag ñoom ñoo xam ci lu ñu jàpp lu dul lu dul leneen lu dul loolu ñoom dañ téye loola waaye kenn ku nekk nag maandu te mënta weesu rek ku ne na téye lam gëm mu nekk ca loola xam na nu lislaam xam na nu ni mu tënkoo ndax bërki démb la am ku may defal benn kii ci ci ci lislaam nu am lu ñuy wax ma ne ko fim mu ne doo ma benn koo xam ne saoudien la wala mu jege woon ko muy ci xaddis wala muy ci euh, taarix sax ci lislaam koo xam ne ka ku bind man nga maa indil ne ma kii taarix bi da ko da koo def ba mu wér Arabie Saoudite la nekkoon dëkk fa amut du tabaraani du muslim du ñoom ñooñee du ca kenn koo ca jël dëkku fa ñii Irak lañ dëkk ñii leen lañ dëkk ki ci gën a wér sax nga xam ne mooy Abdul Malik ibnu Xaasim boo demee ci taarixam boobu siiraam boobu nga xam ne moo gën a wér ci liñ bind yon ci yonent bi moom da ngay gis ne moom it du sawjee kon kii nekk Tuubaa te du sawjee doy nañu suñu digg Rasulullah <laughs> <laughs> kon nag man aw ma saw jeen bu ma def référence kon ci yonent bi waaw aw ma saw jeen bu ma def référence ci yonent bi kon loolu nag xëy na ñi xam te xam te xam la ca biir mën na noo xëy na ndax fii may waxee du wax ju koy ju koy mën a xóotal kon nag gàmmu gaa ngi noonu ñu dox jëm ca mu tollook ne nag gàmmu gi xam naa am na sax waxtaan bu ma daan def tuuti mu xaw a tënku ci tënku ci tënku ci euh, actualité ak jamono waaye nag dafa mel ne te liggéeyub sëñ Tuubaa bi lii ñu doon doxal doy nañu sëkk actualité daan nañ fi daan tënk ci euh, wàllu àddina ak àddina lu mu doxee ci économie ak doxinu politique bi ak doxinu euh, yu demee noone waaye nag mel na ni màggal gi daal politique baak économie baak lépp da koo soppi muy liggéeyub Serigne tubaab kon nag sant naa ci Serigne bi waaye du tere xëy na bu àggee ba ca gàmm ga xëy na mu am tuuti tuuti yoo xam ne ay ixraab la mm-hmm. daan ci dikk nag jéem a def tuuti analise ba xam bu ca xajee waaw kon ñu teel a jekk rek ba bu ñëwee duñ ca xaar dara kon nag euh, bu loola jàllee it euh, bu buñ defee gàmm gi ba noppi ca xëyital weer wa mooy dajeeg màggalug sa ñab laay yàqin gi am naa rafet njott ne ren xam naa ne ñaari fani bi si sa ñab laay yooyu dana ma fa fekk waaw dana ma fekk ma màggalee ko foofu kon diggante mu kër sa ñab kon nañ ko waaj danaa leen gane si foofu ci fan yooyu <laughs> waaw kon foofu moom ndax man foofu laa gënee àddina kon foofu laa dëkk waaw la ca topp nag muy ak cant ñu sant waaw kon nag nuy dolli nag eh di ñaanal sunu mbokkum taalimi mi di murit sekk nga xam ne jëfam du fi dañ ah mënuñoo wax dara te du ca bokk waaye moom eh, naqarloo woon ko ndax màggal si na falaa mën a yem jërëjëf <laughs>